ndax dafay xejjam bu daa sax ci ndigal tax ba lum ñaanit mu def loola ci kun waa ji kon waajal te ñëw jël lim fi jal woote bii yow boo ko déggee na nga ñëw wuute wii yiw ëpp naa def kon ñëwal <clears throat> na nga ñëw yu ca ba feesal sa ko dem booba bis kuñ ci duyul kat mu doyal na nga ko waajal yow ci pas-pas bu dëgër na nga ko waajal it ci kaamil boo wasal jàng loo man ci xasaa it tey jullil ngeen ci yónneen kon lu kon lu fi yiwu da nga ko jël allahuma salli ala sayyidina muhammad salli asalaamaaleykum bokki taalibe yi noo ngi nii ci biir kër Cheikh Abdoul Khadir Mbacké toog doomam ju tedd ji sëriñ Moustapha mu jël ndigal ca magam sëriñ Cheikh Mbacké Cheikh Abdoul Khadir xam ngeen ni nag sëriñ Cheikh du yëkkati lenn lu ko Cheikh Amadou Mountakha joxul ndigal Cheikh Amadou Mountakha Mbacké jox ndigal mu jël rakkam ju baax ji sëriñ Moustapha yàlla nu yàgg a moom jox ko ndigal ak sëriñ Sidi Mbacke mii mu Cheikh Abdoul Khadir nga xam ni moom lañu teg liggéeyu màggal gi ci loxoom mu yore ko ak yii yëpp mu di ko def ci lan la ñu jublu nag bisub ku kenn dul fàtte ku kenn dul fàtte mun na ci xol yi te du si jug mukk xol bu ñu ambal ko yiw boo ko bëggee laaj kooku mooy kan mooy Cheikh Abdoul Khadir yilimaani teg ba liggéey moom ci jëmmi boppam moom la ñuy fàttaliku bis bi mu gane woon jamono ca sëriñ Touba wax ca maam Thierno Birahim la mu ko waxoon bu bis ba jotee nag ku ñëw ca bis ba am ca la Thierno la sëriñ Touba daaloon Thierno kon la sëriñ Touba daaloon Thierno Birahim ku ko bëgg a am ñetti fan ci wutam xarit di la neuf ci weer wii nu jëm dangay ñëw ci bisu Cheikh Abdou Khadir Mbacké kenn du ko fàttee ñu ñaanal ko fàttaliku ko. ñaanal taawum bu baax ba ko wutu woon sëñ Modou Abdou Khadir ak njaboot gi yëpp nu toog nii nag ak sëriñ Moustapha mu sant nu yëkkati sunu kaddu jox ko sëñ Mamoun Bousso mu yëkkati kaddu ñu doog a dem ci sëriñ bi arrahman arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidil mursalin sayyidina muhammadin wa ahlihi wa sahbihi wa sallam taslima asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ ñoo ngi lay jaar la nuyoo bi ci yow mu dem ci sëriñ Cheikh mm-hmm. jóge dem ci Cheikh njabootu Cheikh Abdoul Khadir dem Muntaqa di leen sant bu baax ci bis bi nga xam ne mi ngi agsi ñu ko Sëriñ Ablaay waxee du lu ñuy fàtte waaye lu ñuy yeesal ci fal yi rek lay doon ndax moom boo dee wut lislaam boo ko seenee lislaam a ngooga boo dee wut jaamu yàlla boo ko gisee ma nga noona boo dee ne ana julli boo ko seenee ne ma nga noona lépp luy lu baax Sëriñ Tuubaa doon na ko doonal leen na ko ko muy taxawe lislaam di biir lu ñu ko taxawe ba tax ñëpp a ko ameel cant ñëpp a ko ameel njukkal sëriñ Moustapha mii nag li ci mata wax lépp dana ko wax waaye dama koy ubbee rekk ci bayit yoo xam ne boroom xam-xam bi ko wax Cheikh Abdul Xaadir la netaal dafa wax ne akrim bihi min waliyin saada man sabaqu min alkiraami jamaatin wa afdaada qad kaana tarraaka maa lam yurdi xaaliqahu maa lam yurdi xaaliqahu wa kullu maa huwa يربي kaana mii xaadaa mu ne sanga ngoogu hmm. tedd bu màgg bu sang mboolem gaa yu baax yi te jiitu woon ak ñum jamonoonteel ci gaa yu baax yépp mu sang leen ci ay jikko ak melo moo xam ay mbooloo lañu wala par kenn kenn lañu bu ko léegi noonu laa koy waxe mais nag sang boobu yi nekkoon na koo xam ne kii aji gàddaay la loo xam ne lii boroomam gërëmu ko tarraaka moom da koy firee gàddaay ndax jàpp ko ba di ko bàyyi gàddaay nga koy firee wa kullu ma huwa yubdi kaana mi xaaga lépp loo xam ne lii yàlla gërëm na ko ma ngi ko ne nangu fi kon nag kooku ñu am laay waxe lu waay bëgg muy njëriñul tey ëllëg te suñ sa daa ko wax te di ko wax muy ku ne ndab la nga am na nga ko indi nu mu toll boo dikkee ñu doyal la ko boo bis bi dellu siwaat ak jàmm ñu àndaat ko nii ñu ko ànde Cheikh Mouhamadou Moustapha noo ngi lay gërëm li nga war a wax rek doy na sëkk xanaa dama koy ubbee kat asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci ndigalul xalifatul am li taifatil muridiya ginnaaw bu ci Cheikh Mouhamadul ginnaaw bu ci Muntaxa Mbakke ñal ko yàlla sàmm te wattu ginnaaw boo xamee ne si sëriñ dem na ca ba jot ci moom ndigalam ak jot ci moom mu jox ko daw ul axdar ci ñu mën a def màggal bi ginnaaw buñ amee loola ba noppi nag sëñ Seex jox na ma ndigal ma jot li kàddu yii ma leen bëgg a jot li ngir fàttali leen bis bi nga xam ne mooy bis biñ daa baaxoo defal Seex Abdul Xaadir Mbakke di ci fàttaliku ak gane àdduna mu war a tolloog ñetti fan ci weeru wolof wi ñu jëm waaye di war a tolloog ci weeru tubaab juróom-ñeenti fan di dëppoog bisu talaata ñuy ñuy ñaan àgg ci ak jàmm te defe ko ne ko borom bëgg mooy dundal ko bu baax a baax a baax a baax ci balañ caa àgg lu waaye man ci salaatu ala nabi lu waaye man ci njàngum alxuraan nu mu gën a bari ak mu gën a selle la ca gënal boroom nag te gënal ci suñ borom bi nga xam ne moom moo moo moo moo moo ñu bind mooy lépp na ànd ak ixlaas rek na sell salaatu ala nabi yu na sell ka alxuraan yi nga xam ne mooy lépp di léppi sëñ bi na sell ñu jàngal ko kaamil yi yu bari ak xasaayiti sëriñ bii yi nga xam ne làmboo na lépp ndax buñ ko bindoon jox la ko nii na ko mag ñi daa bindee da fekk lépp fees dell ak turi yàlla ak salaatu ala nabi maa ngi dañ daa ber yi turi yonent bi di ko wertal turi yàlla yi ñu xonqal ko waaye xët wuñu la ci wan da ngay fekk mu fees dell ak loola te waaye wane ak salaatu ala nabi moom war a dem kon ku bëgg lu waaye bëgg ci salaatu ala nabi gi ñu yàlla digal boo nee ci xasaay di mën ko ci amee yaa ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima kon lu ci waay man ci loolu nag ko defal bu baax a baax a ñu ngi koy digal nag daara yëpp fu daara mën a ne tàmbalee Touba tàmbalee Njaaréem tàmbalee Daaru Salaam tàmbalee Daarul Mooti ak këri Sëñ Touba yëpp nag fu ci waay mën nekk rek yi ma tudd ak yi ma tudd ak taalibe bi yi mën a ne te daara am fa rek nañ ko jàngal alxuraan ak xasida ñu ngi koy sàkku ci ñëpp ñu ngi ko yëgal nag mboolem bokk jullit yi waaye ñu njëkke ci mboolem këri lislaam yëpp ak mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal sëriñ bi ñuy ay bokk ñu bokk ak ñoom sëñ bi ñoom ñëpp mboolem kër yëpp ñu ngi leen ko teg ci kër yi mboolem kër yi sëñ seexal yëpp ñu ngi leen ko yëgal di ko teg mboolem wëlëre yëpp ñu ngi leen ko yëgal mboolem ko dub soppe ñu ngi ko yëgal ku ñëw it nañ ko daa waxee rek na nga indi sag bagaan te séentu boo àndee ko passé ba nga àndal na ko turandoom daa defee yàlla yàlla mën na ko cee defee ci dara ji sëñ Tuubaa mi nga xam ne nag lu mu am ci moom la ko jële moom yàlla yàlla duyal la ko ni nga ni ngay ñaan Sidna Abdou Xaadir Jeylaani ne nag mii turandoom nga am bis mu ne ku ne ma indil bagaan ñi indi ñëpp rek yi daal di soppiku wurus waaye nag sàngtaat la yor yi yor yi yi yi soppiku wurus waaye yëpp euh, daa daa ba fees mu ne ne nag fas séef ba nga ma indil laa la duyal loolu mi ngi ci téere yi mm. <laughs> eh, kon kon yàlla na nu ci yàlla dimbale bañ àgg ci ak jàmm moom nag mm. doonoon na koo xam ne li ñu war a jànge ci bisam ku bëggoon ay bokkam la ku bëggoon sëriñ Touba la ku bëgg ku mbokkal sëriñ Touba ku ne noonu la noonu la meloon te nag lii may wax ci moom noonu la njawatu sëriñ Touba gépp mel mag ñi dañ daa wax ni ko sëriñ Modou bu sa waxee foofu moom kan nu joomi man talxa minhum xiltahu kaana sayyidan axiyar ñoom ñoo ki biddiwo yam moo tax kuñ ci toll ci bisam rek bu ñu waxtaanee man nga ne kooku mooy sangu tànni te fekk bu ñu indiwaatee keneen rek mu daal di mel noonu ndax li ñu am dañ ko jëlee ci moo tax mu ne moo tax beneen waykat ñu wax ne sa euh, wa man yakuni cheikhul qadimu aban lahu tariqu awaadihi wa yanzuf wa yashrub képp koo xam ne am naaru ganaar ko ku sëriñ Touba di sa waajur da doon ndab lu neex a jariñoo raqiqul xawaad yi bu ko arab di waxee mooy ndab lu pegg ya eh, tuuti nga xam ne ku ne mën na caa jëriñoo boo dee naan boo dee lekk mu ne ku sëñ bi di sa waajur sa ndab dana neex a jariñoo danga nga set da tedd kon moom mii moo tax yàlla mayoon ko mu mu doon koo xam ne dundam bépp mi ngi ko jeexal ci soññu ci yàlla fu mu lim ñu daa digal nag mooy istixaamatu rek ngir bëgg ñëpp jariñ ndax istixaamatu boo ko amee li ngay wut yàlla yëpp danga ko am inna lazina qaalu rabbuna allah suma staxaamu tatanazzalu alayhim almalaikatu allaa taxaafu wala taxshanu wala tahzanu wa kon moom ci loolu la nekkoon ba yàlla may ko nag mu saddal ñu ci ni ma ko xamee ñeneen ñi xamee xad daraba lana bi taqwaahu wa nasaatihi wa suhdihi wa waraihi wa xashyatihi min allaahi wa xidmatihi fi diini wal imaani irdaan lil waahidi dayaani al masala al ahla lima yajibu an yakuna alayhi man araada an yakuna muminan musliman muhsinan sunniyan ci ragal yàlla am wane nañu jàngal nañu ci akuk sellam akuk dëddoom adduna akuk sàmmoom ak lim doon liggéeyee la diine ak ak liimaan ngir wut payu yàlla wane na ci misaal mu kawe ci ni ab jullit bu bëgg nekk moomin dëgg nekk muslim dëgg nekk muhsin dëgg nekk sunni yu dëgg nekkoo nakoo ko war a mel boo ko jàngee ci moom dana ko ci mën kon yàlla na ci yàlla jëriñ te loola ku ni mel yaay yaay mën a nekk dëgg-dëgg murit yàlla na yàlla nag yàlla na nu yàlla eh, fekkaloo bis bi ñu defee ko nañ ko daa defee te kuy ñëw rek nga daal di si bagaan te ànd ak xaqiida ba mu war a àndal wa kullu aamin wa antum bi xayrin asalaamaaleykum. dégg ngeen sëriñ Moussa Mbacke mu Cheikh Abdou Khadir eh, tubaarkàlla Mbacke ñu ngi lay sant beetalaat wala peq ñun ñëpp nag ñu ànd déglu sëriñ Bousso ci yi sëriñ Alaaji Bousso ci turu bokk yi ñun ñëpp ñu àndandoo déglu ko. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ci tudd Cheikh Seydil Mokhtar nga xam ne mooy naatu xuras mi ci njabootu si Abdou Khadre gépp di coordinateur magal gi ñu ngi leen di nuyu ci aw turam di leen gërëm jot li kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy jottali ci woote bi nga xam ne jot na ndigal ci ay kilifaam mu woote ko mu ne kon woote bi mu ngi woo mboolem ñi nga xam ne bii ñoom la bokkal mu am xaram te ñu jiitu lu ci waaye mën a bokke na lu ci góor wala jigéen boole la mu ca bokkee rek ngi lay woo ci bis ci woo mboolem njabootu si Ahmadou lépp nag tàmbalee ci Cheikh Amadou Moustapha ba ci Cheikh Amadou Mourtada Cheikh Soxna Fatim ci jax ci njabootu <coughs> di ci woo mboolem mbokk mu yi nga xam ne bii ñoom ñoom moom bis bi ñoom woo ñëpp rek mbir bi yëpp ak affaire jafaraat mboolem yëpp di ci woo itam mboolem si nga xam ne bi nekk si bi waxoon léegi yow mu aju ci Sëriñ Tuubaa lu ci waay mën a bokk nag tàmbale ci ko jëkkal jéblu ba ci fi mujj ñëpp ñu leen woo ci bis bi tey ñaan ñëpp teew si nga xam ne ñëpp dinañu teew mu ngi ci woo itam mbooleem ñi nga xam ne bii rek ñoo daa waajal ay xéewal ci di indi ci bis bii te ñooñee bokk na ci ñoom njabootu euh, sëñ Cheikh Niang Diaby ak sëñ Cheikh Bara Mbacké mi ak mboolem ak sëñ Seydou Seydou Niang ak sëñ Garas Mané nekk mboolem mbokk yi nga xam ne daañu ko def ak mbooleem turandoo yi nga xam ne bii dañu naan ay bagaan yu mënti ko indi di leen ci woo loolu Sëñ Abdou Khadir yi mu ngi wooye itam mbooleem yëpp ak soppe yi Sëñ Abdou moom doon ko ne bi ñëpp ay xaritam lañ xaritam ñëpp ñëpp soppam lañu soppam ñëpp la képp ko xam ne julli nga rek kon ab xaritam nga na ñoo xam ne sax dafa dañ ko xarit duñu julli moom waaye moom ñu la xarit woon kon ñu woo ñëpp nu ñooñu nag kii ko soppoon ak ku ñu soppoon di woo itam mboolem tamit turu turu suuf yi yëpp nag ak seen kilifa yëpp kilifa diine yi kilifa waaye ma doon rek sëñ bi moom doon doon kilifa benn tarixa rek kilifa diine yëpp la woon kon ñu ngi woo mboolem bokk yi di woo ak ci ñëw kër yooyu di yi yëpp mboolem njaboot islam yëpp di leen ci woo mbooloo mu ma doon rek ak fu ko di bi xadir ci islam ngay woote rek wooteel kon ñu ngi day woote bis boobu di ci woo nag kilifa euh, mag ji ak mboolem foofu moom yëpp wala gouvernement bi yëpp bawuñu kenn itam di jooytu mboolem parti politique yi ne Sénégal gépp nag ak mboolem mbooloo yi fi nekk yëpp bàyyiwuñ kenn ñëpp lañ ci woo di woo tàmbali gouverneur création bi mboolem ñu ne service yi ne bi yëpp ak mboolem ñu ne ci yëpp ak mboolem ñu ne yëpp ak kilifa ci dëkk bi yëpp di woo kenn ku nekk rek fan ci jàpp ñu ngi lay woo nga jàpp ñu ci laa la xam ne bés bi sa ah, kenn ku ne xam ne fàttali rek la kenn si gàttal foofu mu am rek la waaye xam ne ni kenn fàttiwu kon ñu ngi woo ñëpp bàyyi xel ñëpp nag sëñ bi li mu wax léegi ci ndab yi moom mooy ku ne nañu la sama ndab mooy li bi na mel ni àjjana bi daal li weesu woon lépp jafe yëpp li weesu bi daal ni mel la ñuy ñaan kon sëñ bi sa ndab mooy loolu li weesu xarnu bi yëpp ne mel ni àjjana rek saa ngi woo ñëpp bàyyiwul kenn mboolem mbokk yi mboolem xarit yi képp ko xam ne sëñ bi sa la woon wala na jàpp mën a jur yëpp seen xarit la woon kon waxale ko loolu jërëjëf dégg ngeen sëriñ Alaaji Bousso wax ji wax léegi nañu jox sëñ Ismaïla Mbakke mooy wax ci turu sëti sëriñ Abdul Xaadir yi su ko defee ñun ñëpp ñu ñu àndandoo déglu ko. asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen nuyu ne sa ak sa sant di jiital ci néew bi Cheikh Mamadou Muntaxal Bachir ñu borom yàggal ko fi di ñaanal sëriñ Cheikh. moom sëriñ Abdul Xaadir sunu borom guddalee fanam di nuyu sunu kilifa yi nga xam ne moo taaral jataay bi ak sunu baay sunu jëriñ sëriñ Sidi moom sëriñ Abdul Xaadir di woote yi turu sët Abdul Xaadir yëpp rek nga xam ne ñoo àndoon liggéey bi mu mel ne liñ tuddee ki koy defar muy sëriñ Abdul Xaadir dañuy wax ne lislaam toolub yàlla moom nag da cee amoon tool bu yaatu boo xam ne yaakaar naa bay na ko bay bu set wicc ba tax na at mu jot set yi di ànd di takk seen dikk ren nag dañ ciy soññe rek dañuy wax ne daa am koo xam ne royteef la ci bépp murit muy Cheikh Ibrahima Fall kon nag bu ñuy soññ ab taalibe dañ lay soññee ci jëmmi Cheikh bi kon sëti Sëñ Abdul Xaadir yépp nañ takk seen digg ngir waajal bés bi di ci soññ it sunu mbokk yi muy waa kër soxna xat yi ak waa kër Soxna May rawatina taalibe yëpp gis bi nag ñu ngi koy defee fii ci kër Serigne Mourtada ci mbaar mi conférence sët Serigne Abdoul Khadir Serigne Ahmadou Mbacke mu di ci waxtaan ñu tombeek euh, le 7 juillet ñu tombeek dimanche incha allahu rabbi bàyyiwuñu kenn nag li ko delee ci kër seex Cheikh Mahamadoul Moustapha ba ci kër Cheikh Mahamadoul Mourtada ak soppee Serigne Abdoul Khadir ak mbokk yëpp ñu ngi woon ñëpp bàyyiwuñu kenn ñuy góor ak jigéen mag ak ndaw bis ba daal képp ku fa teew yàlla na sunu borom faj say aajo ndax sëriñ Abdul Xaadir loolu rek ko andi woon ci àdduna muy eh, ràmm jàmm te yaakaar naa dox na ci lu rëy rëy dañuy wax ne eh, néegub yàlla bi képp koo xam ne daana la fa gis nit nit mënatut a wax hmm. lenn lu mën a jàpp ci yow lu dul ab julli la kon nag bisum njëggal la ndax yaakaar naa maam Thierno eh, sëriñ bi waxoon na ko demal yóbbu tur wa te yéexal say jéggo képp koo xam ne ni euh, euh, romb nga ko euh, ba bis bay delsi képp koo xam ne ni tase nga fa moom jëggal nañ kon bisum jëggal la bisum jëggal boobu nag woote ko yomb na li ko sunu wajur waxee mooy na ñëpp andi ay seeni bagage rek ndax duy ci dana yomb kon nag yàlla nañu yàlla doole dimbale ñu fekk ci jàmm ak salaam asalaamaaleykum wa rahmatullah dégg ngeen sëriñ Ismaïla Mbakke wax ju rafet ji mu wax ñu jox kàddu gi nag sëriñ Maam Mor mu wax ci turu dayre bi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu turu sunu jëwriñ sëriñ si di Mbàkke moom Cheikh Abdoul Khadir di leen nuyu itam toujours sëriñ Cheikh Gumbale mi nga xam ne moo jiite fédération Dakar nee na mi ngi woo daayira Dakar yëpp di leen soññ ci bis bii nga xam ne amuñ lu may moom ni noonu yi noonu lañ ci soñee mboolem daayira yi nga xam ne ñoo aju ci sëriñ Abdoul Khadir te nekk ci ci réseau de bi yëpp ak réew mi fu ñu mën a nekk ak mboolem daayira yi nga xam ne ñoo yaakaar Sëriñ Abdou Khadre te nekk bitim réew ku ci mel ni fédération Italie te Sëriñ Mor Sànq jiitu ko di ci woo magi bi yi nga xam ne ñoo ne ci kër gi te Sëriñ Moulay Fall jiite leen ak ak Sëriñ Moustapha Ndiaye ci woo mboolem daayira boo xam ne aju na ci njaboot Sëriñ Abdou Khadre ak nu mu ci ajoo ñu xam ne ñu daal benn bis la am mooy bisu màggalu Sëriñ Abdou Khadre te ren mu war a nekk le 9 juillet incha allah mu am programme bi ni ko sëriñ bi waxee nga xam ne ni nañ ko baaxoo defee ñi nga xam ne dañoo àndoon ak sëriñ bi doon liggéey doon doon nekkoon fi wetam di ay taalibe yu mag di ay jëwriñ ci kër gi moo am bis yu leen jagleel bis yoo xam ne ci la ñuy waajale màggal gi ren le première ñu war koo def ci suñu mbokk mux-mux yi ñu di ko def fii ci asalem bi sëriñ Abdoulaye bi foofu la foofu lañ koy defee muy le première bu bu cinq heures jotee ba ca topp di la trois ñu di ko defee njabootu sëriñ Mbacke Kanni kon ne xam ni demee ak ak sëriñ bi ñu di ko defee kër sëñ Mamoun mu nekk fii ci yoonu euh, Surawe de ni noonu itam nag day bu ñu ko defee loolu ba noppi dañ def ci si Abdul Xaadir at mu jot ren nag ñu def kër sëñ Abdul Wahab moo Cheikh Abdul Xaadir muy doon la cinq incha allah ba ca topp mooy doon la sept bi mooy doon conférence bi nga xam ne moom la moom la sëriñ yi def kon loolu mooy programme bi nga xam ne moom lay moom lay màggal gi tëddee li ci des nag mooy fédération bi liñ daan def muy ren ku ne xam na ne kër gi dafa nekk ci ay chantier ay liggéey yu mag ne fi bu noppee mu war ñu war koo seetal ba mu set wécc balaa gan ñee yegg si bis boobu nag ñu ko jàppale le allah kon nag képp ko yaakaar si Abdou Khadir wala nga sopp si Abdou Khadir ak foo mën a nekk ci ci biir dëkk bi ñu ngi lay woo ci mbale moomu di ci woo maire bi nga xam ne mooy maireu dëkk bi mu jàppale ñu ci camion yi ak ak ay ay bil de serre ndax garawaa bi bëri na ci kër gi bëri na ci feece sanc nga kër si Moussa kër si yëpp fu ci ne ay garawaay dafa nekk yoo xam ne dañu ko war déplacé kon loolu ñu jiwoo ci bi yëpp la 5 incha allah ñu daje fi bu ko defee le 6 euh, bâche yëpp noppi ñu teeru gan yi teral leen euh, kenn ku ci nekk sa bagaan gi nga xam ne moom nga sëñ bi wax léegi nga mën koo duy ba mu fees asalaamaaleykum wa rahmatulah maanaam ñu soññ mbooleem turandoo Sëñ Abdou Khadre nekk ci réew mi ak bitim réew ñu xam ne suñu bisub tërëndoo bi aksi na te ni mu koy waxee waxtu nekk ku ci nekk ñun la ci dimbali ndax xam nañ ne ñun ñu ko di Sëñ Abdul Xaadir fàggul nañ yiw réew woo xam ne mënatuñ ko fay lu dul su bisam dikkee ñu def ci liñ man ak liñ mënul ñu si Sëñ Abdou fu aw ngi lay soññ bu baax li ci jiit na mooy di sëriñ bi soññee léegi muy jàngum alxuraan tërëndoo wu ko man na nga jàngal sa tërëndoo ab kaamil ba loo boo ko mënul na nga la ko jàngal ndax li ko waay defal lu ko ci gënal mooy jàngal alxuraan karim nee na mi ngi soññee bu baax a baax ci alxuraan jooju waaye man te mën a jokkoo commission culturelle bi féeri ci daayira turandoo yi wax leen ko bu ko defee ñoom daan dajale lim yooyu ngir rek xam ne liggéey bi ñu doon def mu jëm taxaw nañ ko nañu a taxawoo li ci dolli ko it mooy addee nga xam ne daayira turandoo bu nekk daana ko barkeeloo ci liggéey bi ngir sàkkoo ko ngërëm ci bisu turandoom bii loolu it soppiku nam daan doxe section yi ci réew mi ak bitim réew ku nekk seen daan lay soññ nga soññ nga daan kenn ku ne nga dem ci sa jawriñ jox jokkoog moom la nga daan barkeeloo ci liggéey bi nga def ko foofu bu dul loolu yi ku ñëw ci kër gu mag gi da nga fekk ñu yor liggéey boobu bu ko defee ñu ànd ak yow wan la si ngay jaar ba mën a dugal sa ci liggéey bi ndax lépp ci sàkku ngërëmu Cheikh Abdoul Khadir noonu itam euh, bool yi nga xam ne muy ay ndabi barkeelu yoo xam ne tungale Cheikh Abdoul Khadir daanañ ko defar di ko indi ci di ko terale gan Cheikh Abdoul Khadir yi fi ñëw na mi ngi ciy soññee soññe na ci Serigne Djili Mbacke del bi ngir mu soññ ci kilifa yi nga xam ne tàmbalee ko ci sëti Sëriñ Abdul Xaadir yi tudd Sëriñ Abdul Xaadir ñoom lañ koy tàmbalee kenn ku ne ci ñoom na nga ko daan defee Sëriñ Cheikh Abdou mi a baax waaye mboolem sëtu Sëriñ tudd Sëriñ Abdul Xaadir yi te jamono ji ñu doon siyaar ne mi ngi fàttaliwaat liggéey boobu ñu daan defal Sëriñ Abdul Xaadir di ko def te mooy bool yi toog di ko indi ko barkeeloo ci liggéey bi ngir teral gan ñi loolu yi Sëriñ Cheikh Abdou mi ngi ciy la ca dolli nag mooy palaat yi nga xam ne section bi féete te loolu ko mën nga jënd benn palaat ba loo man loolu itam lépp jëmaat ci liggéey bi ngir ak jàppande rek lay doon boo xam ne bu ñu dikkee fekk fi muy seen moomeel ñu mën koo taxawoo liggéey bi képp koo xam ne nag liggéey bi yaa ngi ci te bëgg ci am loo gën a leer rek am leer leer yu gën leer ngi ñaan yàlla yóbbu ñu jàmm te nangul lépp luñu jëf yàggal fi sëriñ si si jaboor si Abdul Xaadir yëpp wasalaamu aleykum wa wa barakaatu ñu ngi leen nuyu bu baax ñu ngi mbokk taalibe yëpp ci ñu ngi wax ci turu Sëriñ Touba Mbacke mi nga xam ne moo jiite da ngay ahlu tarbiya yi nga xam ne ñoo jaaroon ci kër gi Sëriñ Touba Mbacke nee na mi ngi soññ ñëpp koo xam ne ci donga boo jaaroon ci kër gi ñu ngi lay soññ bu baax ci liggéey bi nga xam ni dénkoon nañu ci màggal bi li jiitu loolu taxawaay bi nga xam ne ñoo ko daan taxawu waaye jàngkati alxuraan yi nga xam ne ñoo nekk ci mbaar mi nga xam ne ahlu tarbiya at mu jot ñu ci def liggéey bu am solo nee na ñu teel a ñëw taxawu njàng bi su loolu weesoo ñu taxaw nañ daan taxawee ci biir kër gi nga xam lu lu fi ñëw ci wàllu xéewal ak ak yooyu waa ahlu ñoo ko war a dalal kon nag mi ngi woo ñëpp ci njiitul Serigne Touba Mbacké ak si ci njiitul Serigne Afi Bousso nga xam ne mooy taxawu dongay ahlu tarbiya yëpp niñ ko daan defee rek at mu jot ñu ñoo fi daan jiitu di taw toppatoo bagage yi yëpp su màggal gi jàllee tamit ñoo fi mujj toppatoowaat bagage yi yëpp ni ñu ko daan def kon nag Serigne Touba Mbacke nee na ñu ngi soññi mbooleem koo xam ci donga nga bu jaaroon ci daara ji nga teel ñëw jàpp ci liggéey bi kon nañ ci daan jàpp kon nag ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp ñu màggal si ci jàmm ak salaamatan wa afiya delluwaat ci jàmm ak barke Cheikh Abdou Khadre ñu ngi siyaare ñëpp bu dañu dégg ngeen nag kaddu yi fi jub yëpp ci ndigalal sëñ Moussa Mbakkam Cheikh Abdou Khadir toogal magam ju baax ji sëriñ Cheikh Mbakkam Cheikh Abdou Khadir mi nga xam ni wax na ni sëriñ Moustapha doy na ma ci lépp te mu doy ko ak sëriñ Sidi mi ñu teg màggal gi ci loxoom xam ngeen ne bu ñu yenloo ci njàngum alxuraan mi ak durus durus xasida yi ba guddi jot nag ñëpp it ku nekk fa nga nekkoon ak sa kër da nga fay jógee ñu ñëw ci baas bi Xaadim Guèye moo fi fanaan ne jàng ba bët set loolu ñu di ko ñaan ñépp ñu taxaw ci ànd ko ak turandoo yi su ko defee turandoo yi ak taalibe yëpp nu fanaan ci biir baas bi ànd ak xaadim ba fajar jot nag ñu ñëw tàllalaat sëñ Cheikh Mbakkeem Cheikh Abdou Khadir sunuy loxo ñaan sëñ Muntaxa mu yàgg fi ku ne xam ne diggam ak sëriñ Abdou Khadir njëneer yooyu doon naaw ma di ko wax toujours ma nga amee woon mbul te booba seex Abdu Xaadir seex Muntaxa mii la gane ji woon kon bés bu ne seex Muntaxa fonk na ko waaye bisu seex Abdu Xaadir a raw seex Abdu Xaadir nag ku feeñ ci bisam ci lu baax dootoo nëbbu xanaa dégg ngeen la ministre boo xoon Sëriñ Lamine nee na booy dox ci àll ba penku réer la boo teenee seen Abdu Xaadir ne kabaral mooy penku l'islam jëmu ko Sénégal yëbu ko ku mu jur yar na la teg nay taalu beeyam ci yoon ci biir juma la doon ci biir jàkka ci sappe si la doon tànn xaritam kon bis baa di bis Cheikh Abdou Khadir ku ci feeñ ci lu baax dootoo nëbbu nu ñaan nag sëriñ Cheikh yàlla na fi yàgg téwéer